asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi fii ci rokaatu Touba di pàkk bu yaatu boo xam ne nal nañ fi garage mu war a doon gare routière bu yees boo xam ni mooy wutu bi nekk ci Touba. liggéey boobu nag donte tàmbali woon na bu yàgg ñaar fukki fan ak benn ci weeru zulhijja dëppook ñaar fukki fan ci décembre atum 2008 Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdoulahi dikkoon na. teg si xeeru jàkk ji ci ndigalu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ginnaaw boo xamante ni sëriñ Baara Bousso imaam natt na xibla bi ba ñu rëdd jàkka ji mu àndoon itam ak sëriñ Cheikh Basiiru ibnu sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke sëriñ Moustapha ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ak mbooloo mu takku ginnaaw bi nga xamante ni jublu na ci teg xeer wi lii mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ Cheikh wax na ko fa ci turu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke mi nga xam ne moo ko yabaloon nga liggéey bi ñu ngi koy rafet lu baax dañuy rafetlu te di am yaakaar nun nag li gën di sunu yitte rek mooy ki nga xam ne mooy sunu mag nekk fi di Serigne Touba ci nun ñu ngi ñaan rek yàlla yàggal ko fi ba lépp lu mu bëgg a def mu def ko na yàlla def ci moom daal loo xam ne kéemaan lay doon goo xam ne dana bett ñëpp loo xam ne daal menn xel mos koo foog menn xel mos koo xalaat ci doomu ci aw fanam loolu rek daanaka muy suñu yitte liggéey bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñaan rek ñi ñu ko tàmbalee mu egge noonu te itam muy tàmbali ay liggéey di ko àggale di tàmbali di àggale di tàmbali di àggale lépp lu mu tàmbali rek na ko eggale ci sagoom ak ci xelam dara bañ ko dog dara bañ gàllankoor loolu daal daanaka moo gën sunu yite mooy sama mag mooy sama sëñ Tuubaa waaw mooy sama sëñ Tuubaa laa ko jàppe moom ngi nekk ci gannaawam rek ngi nekk ci gannaawam mooy sunu mooy sunu kilifa mooy sunu lépp ndax moom sëñ Tuubaa rek lañ koy xoolee ñu Sëriñ Tuubaa lañ koy xoolee rek muy suñu lépp lu mu wax rek noo ngi ci loolu lu mu tere bàyyi nañ loolu te sax fa suñu yéene nekk ci lenn loo xam ne daf daf nu koy waaw loolu moom waaw loolu daal moom ñun ak taalib bi yëpp daal noo ngi ci loolu képp ku dégg loolu nanu dimbale jàppale ñu ci loolu noonu daal noo ngi ci gannaaw amuñu ñaari baat amuñu ñetti baat benn baat lan yor mooy sunu mag mooy sunu kilifa mooy sunu mooy sunu Sëñ Tuubaa bët yi ñuy xool sëñ Tuubaa lañ koy xool te it fas nañ yéene duñ ci soppiku benn yoon ndax loolu nuy def dafa nekk suñ xol dafa nekkul loo xam dañ koy wax rek di ko wax ci kaw wala ñu di ko def ngir rafetal ak yooyu dañ koo wax te wax gi ñu ko wax dafa nekk suñu biir xol waaw loolu nit nag lu ne ci xolam rek bu koy def du ci sonn waaw gannaaw bu tegee xeer woowu sëriñ ba Badara Badiane mi nga xamante ni moo jiite këru kaay boobu ànd na ak sëriñ bi ak ñi nga xam ni ñoom la ko sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke booleel won leen liggéey bi ngir bu noppee ñi nga xam ne noonu la war a bindoo. def ñaari tali yuy dugg dem ba soo ji léegi garage bay nekk si biir yi mooy doon parking yi bu si nekk dina mën a jël 1500 oto ak junne juróomi téeméer oto. ko def nii tali yi wër ko léegi nit ñi suñu jógee Dakar nii la ñuy jaaree ñoo jël tali bi daal di duggee fii.

léegi si biir dañu def li ñuy wax euh, ay abri voyageur mooy mbaar yi nga xam ne fi la ñi ñëw tukki fi ñu mën toog féexlu mooy nekk dafa am ay banc yu nekk si biir moom mooy wër fii prévoir nañ bi loolu àggee itam tàmbali nañu nemmiku lenn ci cantine yi nga xamante ni noppi na mu leeral ko ak bu noppee itam ni ñu mën a def ba mën cee jot. magasin bi soo ko xoolee am na 3 mètres ñetti mètres si gàttaay am juróom mètres si biir. donc mu doon 15 mètres dina am carreau am si si kaw it si kaw yi magasin bi tamit dina doon 3 mètres 40 waaw nga xam ne dañu mu def ay étagères def nañu tamit ay tour yi pour aération defal si kanam carreau 3 bi loolu jàllee ba tey ci bis ba ginnaaw bi tàkku tàkkusaan jàllee ci la sëriñ bi dikk ci cité bi nga xam ne moom la tuddee Touba Namora ngir seet si liggéey yi nga xamante ni am na fi muy ay kër yoo xam ne waajal nañ ko fi. ba am ci misaal moo xamante ni def nañ ko ci bu noppee nu muy mel ak benn boo xamante ni jox nañ ko ko ginnaaw boo xamante ni nag sëriñ bi nemmiku na ko ba jiite mbooloo mi timis am na kàddu yoo xamante ni sëriñ Cheikh Bassirou ibnu sëriñ Abdul Xaadir wax na ko ci turam ci ndigalu sëriñ bi sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen sant te di leen gërëm bu baax di ci jiital Aliou Badiane mi nga xam ne moo jëf liggéey bi jox ko addiyee sëriñ bi sëriñ bi ñëwoon fi di ko di ko ci ñaanal nee na mi ngi ko ci ñaanal bu baax